المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر loolu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu nuyoo lislaam bu sell jóge ci mbokkum jullit jëm ci mbokki jullitam loolu ci laaj taala al karim gannaaw nuyoo bi di leen sant di leen gërëm di bég ci yéen ci daje bii nu daje ngir jëmmi suñu borom tabaraka wa taala ak rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam ak Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu ñu waral daje bi ci loolu ñu suñu bopp di fàttali mbooloo mi fi teew bépp li nga xam ne moo waral daj yu mel nii ci ëllëg xam ne ñu jaam wut te du moom mu wut kooku gën ku ko xas ba am ñàkkatoo dara ku amul it amuloo dara mu di suñu borom tabaraka wa taala bi mu bindee doomu aadama indi ko ci suuf mu weesu démb ne ci tey ëllëg ne ci kanamam mu sàkkal ko waxtu daje bu muy dajeeg moom mu war a waajal daje boobu war koo xaroo war cee def xelam war cee jublu ak kàttanam ak yeewu teem ngir mën a am mucc googu nu waxoon dem mu am nag yoon mu war a jaar ci sàkk bi muy sàkk mucc bi ngir mu mën a mucc ëllëg waaw suñu borom bi mu sàkkee jaam ñu ne ci kaw suuf faw gannaaw doomu aadama dafa bëgg a mucc am ñu taxaw di fàttale ndax fàtte dafay waral doomu aadama suux suuf bopp dut suqaliku ñu ne nag jullit mu ngi mel ne jaaykat commerçant bu jaayee ba ngoon war a seet marchandise li ci jar la mu jarle mu wëññi ko bu amee ngañaay bu perte bu gañewul pertul jullit bi war jant bu so ay bés bu jeex weer wu dee at mu mat mu seetaat boppam li mu wees lu mu ci tooñ mu jéem ko jéggalu te di ko rëccu di ko metitlu borom bi yërëm ko lu mu ci defoon ci lu baax mu xeet ko tey saxal ci xolam ne bu pay ga ñëwee dana rus te dana xeeb li mu jëfoon mu yokk coonoom jëmee ci li koy jëriñ ëllëg jaar ci bunt bi nga xam ne mooy buntu texe ñuy fàttali suñu borom tabaraka wa taala kaw démb bi amu ci lu dul ñetti néeg ñetti néeg lañ ko ci askane te benn bi ci la gën a dëkk bu njëkk bi moo di baytullaahil xaram bi mu tudde néegu boppam ñaareel bi moo di jàkka yi ni mu waxee ne wa anna al masajida bi mooy bu gëm yàlla di ndab lu fees la mu feese di ngëm ngëm di li gën ci àdduna ci képp kuy dund xol nag mooy ndabal ngëm mooy ndabal lépp lu doomu aadama di bëgg kon ngëm am na lu muy xëccool ci xol bi xol boroom day dox ci àdduna di dund dund gi mu dund ci àdduna fees dell ak ci nax nax fees dell ak ci bëgg dell ak ci njàqare fees dell ak ci coono fees dell yu koy soxlaal xol bi di fagg di tilim di lëmu ci am lu koy buur xol sallallahu taala wa sallam ne na la xol bi nga xam ne këmboote ko muur mu mel ne tax yaj bu kenn yettul borom bu déggu waar wal iyaazu billahi mooy xol yi lëndëm mooy xol yi ñuul mooy xol ñu jëmul fa ñu tànn ñaareelu xol bi mooy xol bi nga xam ne dafa mel ne rek poussière maanaam pënd moo ko faggal ba muur ko ba gisatoon meloon meloon jamono moo wëlbati ko ëff ko wala nga fëgg ko mu dellu melaat na mu meloon ñetteelu xol bi mooy xol bi suñu borom tabaraka wa taala misaal mu ne ka miskaatin fiha misbaaxun al misbaaxu fi zujaaja zujaajatu ka annaha kawkabun durriyun yuqadu min shajarati mubarakatin zaytuna moo di xol bi nga xam ne daf mel ne askar maanaam biddiw buy yanj ne dafa leer nañ ba boo ko jegee woon jàkkaarloog moom leer dafa mel ne day fatt say bët dootoo mën a xippi xol boobu mooy xolu borom daraja yi gën a kawe yi gën a jege suñu borom ci biir waxtaan wi daañu dem ci seeni nelaw xol bu njëkk bi moo doon li alquran di wax aw ka zulumatin fi bahrin lujjiyin yaxshaahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun zulumaatun ba'duha fawqa ba'din ida axraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuuran fama lahu min nuur mooy xol bi nga xam ne dafa lindam baraw ku lab ci géej ci guddi lëndëm wax set muy taw lëndëm da ngay nekkee xol bu mel noonu wala bu ko raw mooy xol ba ñu bind borom ngir safaan ba wala iyaatu billahi kooku taxul ñuy wax ku ne xam ne ni ne fàttaliku dafa am njariñ ndax alquran daf ko digal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minina la fàttali jaam ñi seen ëllëg di leen fàttali seen borom di leen fàttali yoon ñu jëm ci texe ñu leen jëm ci ajana ndax fàttali ak waare day jëriñ ñi gëm day raxas seen xol am na bindeef yoo xam ne bëgguñoo dégg dëgg waxtu woo waxee dëgg seen xol fat ni alquran misaale waa ji nga xam ne xolam njub du ko tàbbi ba ne seeni xol mu ngi demee ne xëtëru waa ji nga xam ne yéeg na ci kaw asamaan ba weesu couche atmosphérique bi nga xam ne moo amee oxygène bu borom noyyee ca foofee nga xam ne amul atmosphère ñii xëtër yooyu mel ne der wu ci taal bu ñu tuddee lu jëm ci yàlla noonu la xol yooyu di tàyyeele noonu la ñuy amee lu leen naqari noonu la ñuy fote noonu la ñuy étouffé ñoo waral Muhammad rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam ne min annaasi man yamut nisfuhu wala yazdajiru nisfuhu am na ci nit ñi kopp bu genn wàllam deewoon wet itam du tax genn wàll ga ci def mukk jajju dellu si ci boppam wala mu fàttali ko ëllëg te adduna ñaari yoon ci soqee jëm ci kër goo xam ne du gent mukk ñaari yoon yi bii moo jëm àjjana bii jëm ca safaan ba ñaari yoon yooñu nañu mel yonent bi nee na xuffati aljannatu bilmakaarihi wa xuffati naaru bi shahawaati ajjana ay cibee la ko feet maanaam ay naqar ak i tiis ak i métit safara bànneex a ko feet yoon safara mbëg rek la ak bànneex waaye muy mel ne mànd nga xam ne dañ koo sol ak lu bon wala posen wala safara ba mu bëgg àgg bunt ba ñu sotti ko lem ba fees da ngay dëkkam ci lem gi di naan ba àgg ci musiba ma rek te doo wàññi ko àjjana it mel ne mbànd moomu nga xam ne dañ koo def lem ba nga xam ne tuuti des ci bunt bi ñu fatte ko lu naqari lu wex xam ne kon muñ rek mooy jàlle doomu aadama waaye muñ ko jëndee jar na ko wa an laysa lil insaani illa ma saa yàlla nee na doomu aadama amul lu dul la mu jëf la mu jëf ëllëg rek a koy jariñ moom rek lay fekki waxtu wu duggee ci bàmmeel jëfam la fay fekk bu dekkee jëfam lay dajeel ci bis ba ñuy daje muy juróom fukki junni at yi suñu borom misaal doomu aadama yépp daje ci benn pàkk bu leer naññ bu tàllalu amul ëkk amul tund ak xur amul fu kenn làqu jinne yi wër leen fukki sàppeek ñaar malaayika yi ñëw wër leen fukki sàppeek ñaar ñu ñoddi jant bi ba muy waajalaal bopp yuur yi xet bu keroogee doomu aadama jëfam ji mu jëfoon mooy di koy sowe nee na yet moo uñ lisaanu yow ma isin wala yashrab bis nit dana mar te du naan doomu aadama dana rafle te du woddu dana xiif te du lekk da jif gis ku sonn te du noppalu gis ku yaramam lakk ba xëm wala mu ñor te du am genn ker bu mu kerlu ndax ñetti ker rek fa am keroo arsu rahman aras suñu borom tabaraka wa taala malaayika yi ñoo koy seeloo li waaw alhamdi mooy ñaareel bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci saabaam ñoo cay kerlo ñetteelu ker yi jullit bu nekk ci sa keroog sarax ngay ngay ngay kerlu keroog bis boobu suñu borom nee na yow man yëj alul wil daana shiban bis la boo xam ne xale yu tuut yi sax daañu tiit ba bejjaaw nee na yow ma taw naha tadhalu kullu murdiatin amma ardaat bis boobu la jaboot ji di wetti doomam ji mu doon nàmpal sànni ko fële dootu ko faale ndax tiit ak njàqare wa tadau kullu zaati xamlin xamlaha jépp aji ëmb dana wasin fi saas ndax tiis bis ba wa tara naasa sukaara wa maa hum bi sukaara walakinna azab allahi shadid nga janloog doomu aadama yi ñu mel ne ñu mandi sàngara di jàng di gëweelu nga defe ne dañoo mandi te mandi wuñu métiitu tarub mbugalu suñu borom rek leen jàpp wala iyaadu billah ñaari yoon ñooñu yoon wu ci nekk am ñu ca jaar ñaari dëkk ñooñu faw am ñu koy dëkke suñ boroom nag giñ na ne la am la an na jahannama min al jinnati wan nas giñ na ne dana feesal safara ci diggante nit ak jinne waaye waxul ne dana feesal àjjana de ñooñu nag war a feesal ëllëg safara képp ku jaar ci yoonu baax ñoo lay jéem a gàllankoor ci seeni i kaddu ak ci seen jëf yàlla daf leen di may cawarte ak xel mu ñaw ak lamiñ wu saf koo xam ne fu ñu wax ak yow wedam loola talay lay rek lañuy indi mat sañoo xam ne waaye a ba nga xam ne alquran dafa wax ne yow ma yaabdu zalimu ala yadayhi yaqulu yaa laytani ittaxadtu maa rasuli sabila yaa waylata laytani lam attaxis fulanan xalila laqad dallani ani dikri bada is a wa kaana cheytaanu lil insaani xazula bis ba nga xam ne keroog la aji tooñ ji di matti baaraamam di wuccax ngir aka neexoon ma jaaroon yoonu yonent bi lay wax musiba dal na ma aka neexoon ma bañ a xam diw ba di koy takk xarit aka neexoon ma bañ a dajeek moom bay ànd ak moom aka neexoon ma bañ koo xaritoo laqad adallani an dikri ba'da iz jaa'ani ba ma umpalee yoonu yàlla sorel na ma yoon yàlla ba ma digg dëkkale ba dëgg dikkalee ñooñu suñu borom ci boppam moo nëmmul ci ñoom ak texe moo tax mu ne wala waraadul xuruj la addu lahu uddatan walakin karaha llahu bi'asahum fa sabbatahum wa qila qudu ma alqaidina bu yàlla namoon ñu génn jëm ci jihaar ci yoonu yàlla bu yàlla namoon ñu génn jëm ci topp yàlla ñu bëree seen bànneex xeex ak seenu tayeel ba jëm ci yàlla wut fu ñuy amee yërmande yàlla wala fu ñuy sowee ëllëg kon ñu xaroo ko bi mu dee jamono bi nga xamee ne tollu nañ ca waaye yàlla ci boppam moo nanguwul seeni xol bañ ñaari wàcc waaye rek a am tadkuru nii adkurkum yàlla ne di leen ma fàttaliku ma di leen fàttaliku yàlla sax du fàtte bay fàttaliku waaye nag ki ko fàttaliku day jëfalanteeg moom jëfi kuy fàttaliku benn wala ñaar nasullaha fa nasiyahum fàtte nañ yàlla yàlla fàtte leen maanaam yàlla fàtte fàtteelu leen maanaam jëflanteeg ñoom jëfi kuy fàtte ndax nit ñetti melo dong la am yawmal qiyaama ci texe ak ci texewul ci texewul ñaari melo la am bu fekkee ne topp bànneex ak te texe melaw mbaam xuux lay ame keroog bu dekkee moom lay dekkaale moom lay nekk ci bisu pang ba moom lay duggee safara ñaari ngaamam yi la ñuy téye booleeg ñaari tànki gannaawam yi wëndeel ko ba mu ba mu miir ñu sànni ko ci biir jahannama fajar gën a këbëj këpp ci koom mu ngeeñu muy tëmbelu ca biir wala ki nga xam ne mer moo sabab ak texee di am melaw xajum ngóom ba buy gëddalee am noonu lañ koy taxañe moom sànni ca safaan ba jëmm ji desee jëmmi doomu aadama nga xam ne dafa niroog rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bind nga xam ne yàlla li mu bind lépp nit a ci ëpp xadara nit ci ëpp solo nit ci gën a ndax nit rek a tax mu ni laqad xalaqna linsaana fi ahsani taqwimin summa radadnaahu asfala safilina illa alladina amanu wa amilu salihaati bind naa nit doomu aadama gën jaarafeti melo gannaaw loolu ma delloo ko ba mu gën a suufee way suufe ñëpp way nit am na ko mën a baax ba mel ne malaayika wala mu gën malaayika ci li yàlla def ci biiram mën na sàggan dellu gannaaw ba baahima yi gën ko bu ko baahima yi gënee mooy suma radadnaahu asfala saafilina moo tax ñu setti illa lazina amanu wa amilu saalihaati doomu aadama jëf la am ak yéene jëf mooy njëkk a jeex yéene bu demee ci bàmmeel di fa dëkk dëkk goo xam ne kenn xamul kañ la saa di taxaw du fa dundee dara du fa waddoo dara du fa xéwloo dara du fa bànneexoo dara lu dul yool bi mu am mooy li mu fàgg woon bu loolu jeexee te xamaguñu kañ la saa di taxaw yéene fay sës ñu randal fi yéene waxtu wu yéene jeexee nag keroog la addinaam di tukki ndax yéene bu amee rafet mel na mu war a mel jëf dikk jaar fa mu war a jaar boroom am yoolu yéene ak yoolu jëf waxtu xamee ne yéene mat na rafet te amul kàttanug jëf suñu borom fay ko yéene mooy wa man yaxruj min baytihi muhajiran ila allahi wa rasulihi summa yudrikuhu al mawtu faqad waqaa ajruhu ala allah ku génn génne sa néeg nam ma gàddaay jëm ci yàlla ak yonent bi dee jot la ci diggante bi yàlla gàddu sa pay loolu lépp bi lu tax nit war di daje di sottantey battu di nattantey kaddu ngir bëgg a dimbalante ba not lu bon taxaw ci kaw baax muy dem ba ci nekk ci jamono boo xam ne tegtali ngëm dafa réer melo yi diine sànku xalaat bu jub bu jëm te sell jëm ci li tax yàlla bind mi nekk di lu kenn seetatul di dox diggante yàlla ak mbindeef yi di lu kenn toppatootul xam ne daanaka mel na ne lu raaf lu kenn xamatul li gën a bari ci nit ñi dañuy dund rek nekk ci àddina di wéy du ñu yëg dara dara dara dara ci li nga xam ne moom la yàlla santaane loolu di li ñu tuddee perte te perte mooy indi texee di iyaatu billah doomu aadama bañ lu dul jox boppam seytaane fas yéene bàyyee boppam ak seytaane rek mu di ko foye ne coupé fas yéene bàyyee boppam ak bànneexam di jëf ak kattanam gépp ak xelam mépp ak pexem yépp ngir sànq boppam sànq ki ko topp ak ñi mu àndal gërëmloo seytaane bëggloo ko bëggloo bakkanam bëggloo bànneexam di liggéey àdduna rek bi nga xam ne du dara du kër gu woor kër gu sax bi nga xam ne du dañ mukk di lu ñu fàtte wa sa ya'lamu alladina zalamu ayya munqalabin yanqalibuna loolu lépp lu tax li mu wut ci àdduna mu am ko te day perte àllaxiram mu mel ne kuy dàq sa takk ndoor bëgg koo jàpp te doo ko jot mukk nit nag dal di jaaxle ba mu sàkkee beneen boroom bu muy jaamu ku ki ko dundoon di fas yéenee suural ku dul suur mukk muy bakkan ak bànneex ak mébét nit di dellu gannaaw defe ne mu ngi avancé defe ne mu ngi gën a civilisé defe ne mu ngi gën a xam fekk li muy gën a xam lépp ak delloom gannaaw la ndax jóge na ci ba muy jaamuloo menn moroomam àgg ci aw xeet di jaamuloo weneen xeet di leen moom ni jaam di leen jëriñoo te defe ne jub na defe ne sotti na doomu adama amee jikkoy seytaane ak jikkoy ndom ment ak jikkoy bàyyi ma nga xam ne keroog bi nga xamee ne tàmbali sanc nañu suuf xam ngeen ne suuf ay mbindeef njëkk na ko dëkkee lu jiitu aadama mbundat yooyu yële ci lañuy ñuy nit ba ñu jàppe ne ñooy maami nit ci omo yooyu le di wéy di wéy di wéy ba keroog ba suñu borom namee def xalifa ci kaw suuf muy aadama alayhi salaam mu wax malaayika yi da leen inni jaa'ilun fi l ardi xalifatan damay def ci kaw suuf koo xam ne kii moo may wuutu ndax yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam nee na inna allaha tabaraka wa taala xalaqa adama ala suratihi yeneen riwaaya hadis yi ne ala surati rahmani suñu borom bind na adama ci melaw boppam def ko mu wuutu ci kaw suuf bis boobu la xam-xam juddu bis boobu la jëf juddu bis boobu la yar juddu lu tax xam-xam juddu bis boobu ba malaayika yi jàppee ñoom ñoo suuf ndax ñoom dañoo sell du ñu lekk du ñu naan du ñu génne sobe du ñu tuur deret du ñu sëy ñu yàlla sellal lañu sabbal yàlla ak tudd ko ak fàttaliku ko mooy seenu jaamu mooy seenu lekk mooy seenu naan ay leer ci leer la ñu leen bind ñu jàpp ne lool tax na kon ñoo gën te ñoo war a dëkke suuf gannaaw suuf bërëb bu yàlla fonk la bu am xatar xatar ñoo xam ne daan ko waxtaanee ci kanam bu soobee yàlla ñu jàpp ne ñoom ñoo ko yelloo xamuñu ne suuf ki tax ñu sàkk ko ki ko war a dëkkee dafa am ay secret ci biir yoo xam ne moom rek ko mën a génne te bu dul moom secret yooyu du feeñ bu dul moom xikam yooyu kenn du ko xam mu di doomu aadama doomu aadama war a jëfandikoo suuf war koo bay war ci génne ay njëriñ diggante wurus xaalis ak yeneen minerais yu mu doon génne ci essence génne ci goudron ak lépp doomu aadama di ko jëriñoo waxtu wu demee ba toll foo xam ne am na lu war ci moom te amu ko mu génne ko ci biir suuf mu mel ne bato boobu nga xam ne dañ koo sàkk dugal ci ay nit def ci lépp lu ñu war a dundee bàyyi xel ci ñi fiy juddu ci diggante bi ak ñi fiy dee ak nañuy yokkoo ba ba ñuy àgg fañ jëm ñi fiy feebar garab yi ñu war a aajowoo lépp nekk ci ba muy àgg foofa malaayika yi umpale loolu lépp keroog bis boobu suñu borom xamal war a xamal malaayika yi ne leen xamu leen dara laaj leen jumtuwaay yi ci kaw suuf nañu tudd ak nañ koy jëfandikoo kenn xamu ko ci ñoom aadama dong xam ko wa allama aadama al asmaa kullaha summa radahum ala al malaikati fa qala anbiuni bi asmaai haula in kuntum sadiqin keroog la ñu tegal aadama siis mu toog ci di jàngal malaayika yi di leen yee di leen atte di leen yar moom aadama alayhi salaam bis boobee kon ma ne la xam-xam tàmbalee juddu bis boobee la yar juddu ba léegi xam-xam ak yarute maanaam yare ay cheikh lañu yoo xam ne benn bu ci dem wacc moroom rek adduna yàqu nu dem ba toll ci diggante boo xam ne xam-xam dem na yarute des gannaaw xeet yi gën a jiitu ci kaw suuf ëpp doole wax ne ñoo ëpp xam-xam ñoo gën a civilisé ñoo ëpp man-man ñu des gannaaw ci yar ba seenu melo kenn mënu koo waxtaane lu ñu gën a tabax ay école yu ñuy jàngalee lu professeur moral yi wala psychologie gën a bare lu jàngalekat yi gën a farlu dossiers yi ci tribunaux yi gën a fees kaso yi gën a fees gendarmerie yi gën a sonn awokaay yi gën a bari gën a wax gën a coot xam ne kon doomu aadama daf mel ne dafay dellu gannaaw di gën a dëng rek di gën a dëng di gën a dëng la kenn nit daan def kenn nit ëpp ko doolee jàpp ko dem jaay ko aw xeetu lëmm ñoo koy def aw xeet wala ñuy rooxale diggante aw xeet ak weneenu xeet ngir nañu tardé bañ mën leen a ñu def ba faaw rek doomu aadama daal di sos ay diiney boppam def diine boppam ci xelam ngir réeral diine yàlla rek ngir bew ba loolu amee la jullit ñi geesu seen téere bi ñu naan alquran gis yàlla ne wa aiddu lahum mastataatum min quwatin wa min ribatil xayli turhibuuna bihi aduwallahi wa aduwakum na ngeen leen xaroo lépp lu ngeen mën ci kattan ak ci warwaay ak ci gànnaay ngeen tiital noonu yàlla yi nga xam ne seeni noonu lañu yéen di noonu yàlla yàlla dal di santaane yoon doomu aadama war jaar bu mucc mu di na xam fi mu jëm fi mu jëm daf ko war a xamlu ngir mu xam ko ki ko koy xamal a ngi fi daanu ci dem ba nu dugg ci mbiri tasawuf ak Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu yonente bi alayhi salaatu wasalaam mimman salaka tariqan yabtaxi fiha ilman sahala allahu lahu tariqan ila aljannati képp ku soobu yoon di wuti xam-xam yàlla dana la leeralal yoonu wu jub xocc wu jëm àjjana sàkku xam-xam yëmul ci ubbi téere rek wala góof ci sëriñ rek xam-xam nit mën na koo sàkkoo ci waxtaan nit mën na koo sàkkoo ci anam gu nekk jamono yi nekk sax nit mën na koo sàkkoo ci rajo mu ne wax inna al malaikata la tadaw ajnihataha li taalibil ilmi ridan bi ma yasnau malaayika yi daañu yiir seeni ci kaw kuy sàkku xam-xam ngir bëgg ca la muy def wa inna al alima la yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fi l ardi hatta al insani fi l ma ne borom ñi ci kaw asamaan ñëpp ak ñi ci suuf ñëpp dañ ko sàkkul dañ koy sàkkul njëggal ci yàlla ba ci jën ya ca géej ga sax dañ koy ñaanal njëggal mu dellu ne wa fadlul alimi ala al abidi ka fadlil qamari ala sairi al kawakibi nga ne lal aji xam ci kaw aji jaamu mu ngi demee ne que weeru laylatul badar ni mu gën a leere biddiw yi yatlubul ilma walaw bi siin sallallahu taala wa sallam ne na ngeen sàkku xam-xam ba siin sàkku xam-xam tàmbalee fi nit ki juddoo ba fi ñu koy suule ci bàmmeel imaam Abu Hurayra nee na radiallahu anhu ci saxaaba yi la bokkoon yonent bi mësula dañ di ñu jàngal ay xam-xam di yee di waar ba kenn ku ne ci ñun bu picc naawee sax mu am ci xam-xam bu ko ci yàlla xamal boo xam ne keneen du ko xam jullit ñu njëkk ña jaaroon nañ ci yoon wu jub woowule gannaaw gi nag la ñu yox yoxi ba delloo gannaaw ba féete gannaaw ba dem ba seen diine di leen bëgg a rëcc te bu leen rëccee ñàkk àddina ñàkk alaxira ndax xam ak jëf lu yàgg-yàgg lu la ñàkk xam mooy njëlbéen bi jëf moo ci tegu mu mel ne garab ak meññetam garab gi mooy xam gi meññet bi mooy jëf ci kon garab bu meññul du am njëriñ xam buñ ko jëfewul du am njëriñ xam ak jëf nag moo waral lépp loo gis moo ko waral xam nag mu ngi tàmbalee ci bismillah turu yàlla waaye tàmbaliwul ci bismil ilmi loolu tax waa sowu yi yàlla sànq leen bi ñu toppee science te amuñu conscience jëf nag am na yu bari yu muy dikkee bu seetee ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daanu xam ne jëf ji mu mën a doon doomu aadama mën na caa jaamu yàlla sallallahu alayhi wa sallam am na ci bàkkaar yi bàkkaar yoo xam ne dara bu nu koo far lu dul jëf loo dugalee sa sa bopp ak sa njaboot nga xam ne kon loolu jaamu yàlla la jihaar la jihaar ak jaamu la waaye li gën ci jëf yi moo ngëm gannaaw ngëm jihaar mu ne jullit ñi bañ a nekk wala takunu kalladina utul kitaabu min qablu fa taala alayhim lawadu fa qasat qulubuhum bu ñu nekk mel ne gaa ñi nga xam ne dañ leen a joxoon téere bu jógee asamaan mu la ràññal leen leen dëgg ak seen leeral leen yoon wi ñu war a jaar waaye yàgg gi mu yàgg ci ñoom ñu miin ko ba yàgg ko tax seeni ñu dem ba seeni xol wow ndax nit day juddu ci lislaam di doomi jullit gëm ne yàlla am na gëm bis bu mujj ba jëfi topp yi mu juddu fekk ñi di ko def mu ànd ci ba mujj du dara ci moom lu dul aada du amuk teewlu la taxoon ñu sàkk ñi santaane jëf ji du ca ànd muy ay yënguy kese rek ko defee mu mel ne jëmm ju amul roo loolu mooy indi xol bu wow ba jëf ji dootu jëriñ nit ki loolu lépp li koy indi mooy fàtte ëllëg topp adduna te adduna ak ñàkkam solo tollu na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ma dunya fil axirati illa kama yaj'alu ahadakum isba'ahu fil yammi fanzur bi ma yarji'u adduna ni mu demee ak alaxira mu ngi mel ne nga fab sa baaraam bi sëpp ko ci géej mu ne seetal liy tax ci sa baaraam ni mu wuuteeg géej gi noonu la adduna wuuteeg alaxira te àdduna li muy ñàkk ñàkk solo bépp xéewal bu ci nit xéewaloo daañu ko ko laaj ëllëg dana wax na mu ko jóge ak ci lu mu ko sànq yaramam mi dana wax ci lu mu ko ràppal dundam gi dana wax ci ko jeexal naka noonu mépp musiba mu ko dal naka noonu bépp métit bu ko dal wala ñàkk bu ko dal wala naqar wu mu doon ak lu mu mën a doon daañu ko laaj ëllëg bu fekkee ne muñ na ko ngir yàlla xam ne yàlla ak dana faxas bàkkaaram te dina ko indilu texe dana ko indil yowmal xiyaam yoon yoo xam ne kenn du ko natt kenn du ko peese kenn du ko wàññi nee ñu bu keroogee bu ñu janloog ñi yàlla musibaaloon ci adduna kenn ku nekk ku ca bokkul woon da nga ngir jëw woon soo newoon ci adduna ñu di la siso ba sa yaram lépp def ay lawtan doomu aadama dafa ñëw fii ci adduna ngir jàng ak yaru war naa jàng lépp lu mu doon xam lépp lu mu doon xam nag la muy jëf ak la muy bàyyi ndax bis bu fekkee ne xamu ko ba ñu réeral ko ci ceytaane bis na ci kanamam yawma yaqulul munafiqun wal munafiqatu lillazina amanu nuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran fadribu baynahum bisurin lahu babun batinuhu fi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'adab yunadunahum alam nakun ma'akum qalu bala walakinakum fatantum anfusakum wa tarabastum wa tarabastum wa gharratkum al-amaniyu hatta ja'a amru llahi wa gharrakum billahi al-ghurur bis bu ñuy dekki jullit ñi dekkiwaale seeni leer naafiq yi dekkeeg leer bu woyof ñu fay ko ñu nekk ci digg lëndëm boo xam ne gii ku yëkkati sa loxo doo ko gis bu keroogee borom leer yooyu nekk ci seen kanam raw leen ñu di leen yooxu ju leen woor ey waay geesu leen ndax seen leeru xar yi leeralal mu fi nu war a teg suñu tànk ndax dagg bi metti na ak par dagg bi rab yi metti na ak poussé yi nu di ci jaar waaye waaye leeralal leen ñu daal leen di diiju daal leen di ñaawal ne leen dellu leen adduna ngeen sàkku fag leer foofa lañ ko sàkkoo woon ndegam doomu aadama day feebar ba mënatu la yëngal benn cër xam ne yëkkati loxoom dong ba ñi ko tiim am yaakaar ci moom mënatu ko ak ci ba mu faatoo ba ñu suul ko ba mu ràpp ba dekki ba jëm ci pang ba wax dëgg yàlla booba kay ku ne xam na ne dellul adduna sàkkuwaat ak leer diiju la ñaawlaate la irji'u waraakum faltamisu nuuran ba mu ko defee ñu daldi di taxawal ci saa si miir bu gudd seen diggante miir boo xam ne la mu ëmb la ca biir xéewal bu dul dog la ak bànneex waaye la ca bitti muy la féeteeg naa sa xëya mbugal rek la ba mu ko defee ñu tiit jàq dal di woote yoo ca kaw ngir njàqare yunaaduunahum alam nakun maakum ay waay sarax leen nu waay walbatiku mu ndax àndul woon ak yéen xanaa da ngeen a fàttali ne noo yéen a àndoon di jaamu yàlla di jullee ko woor ay fàttaliku loon ne suñu seen mbokki jullit lañu woon fàttaliku leen noo dëkkoon démb ñu ne waaw waaw noo àndoon démb de waaye fooy ngeen seen bopp ba seytaane jommal leen dugal na leen ci musiba ngeen sikki sàkka ay mébét war leen ba mbirum yàlla dikkal leen seetaane nax leen allo lu tiis a tiis la yonente bi sallallahu taala wa sallama nee na isa ata alay yowmun la azdaadu fihi ilman yuqarribuni ila allahi fala burika lii fi tuluwi shams dalika al yowm bis boo xamee ne fekke naa bis boo xam ne dollikuma fa xam-xam ci yàlla lu may gën a jegeel yàlla bis boobu yàlla bu ko yàlla barkeel fenkatal jant loolu yàlla bu ma ko yàlla barkeelal li ñu njëkk a laaj doomu aadama li ko gën a sooy bokk ci yërmande bu demee ci kanam tuuti daan waxtaane fi ko sëñ bi wax ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na man rahima rahima képp ku yërëme rek ñu yërëm la wala dabixat usfurin donte picc mu ñu rey lañu nga robb ko rek yërëm ko bis suñu borom dina la yërëm yow itam nee na benn jigéen boo xam ne dafa dëkk ci def lu ko neex yàlla fegal na ko safara ci benn xaj bu mu romboon mu tiim benn teen mar bay yàlkat mu dal di summi dàllawam soloon yeew ca musóor ga tëmbal ko ca teen ba génne jox ko mu naan mu delluwaat tànqati ban xaj ba màndi mu bàyyi ko mu dem suñu borom jéggal ko la mu daan def lépp tàbbal ko àjjana am na ci ulama yi koo xam ne dañu ba mu dee gis nañ ko ñu ne ko na nga def sa borom mu ne sa borom jéggal na la njéggal gu yaatu waaye bi ma jéggalee ba noppi daf ne ma loo yaakaar ne moo tax ma jéggal la ma ne ko xanaa sama julli gu bari gi ma daan julli mu ne déedéet loolu taxul sama koor gi ma daan woor mu ne déedéet loolu taxul sama xam-xam bi ma daan tasaare di yee nit ñi mu ne ko loolu taxul balam xamoon jeex mu ne ko yow buur bi lu tax nag mu ne ko lenn benn bis ci bis bu tàng yaa ngi bind di taalif téere ba nga sëppee xalima nga ca daaji yëkkati ko weñ mar mar woo xam ne bu naanaloon keroog dee takk ca catal xalima nga di naan ca daaja nga ko bañ a teg xalima ga ca kayit wa lu dul bàyyi ko ba mu naan ba màndi ba naawal boppam yërmande jooju nga ko yërmoon moo tax ma yërëm la tey loolu moo tax sallallahu taala wa sallam ne masalul muminina fi tawaddihim kamasalil jasadil waahidi idaa istakrat minhaa udwun tadaa lahu saa'irul jismi bi sahari wal humma jullit ñi ñu ngi demee ne jenn jëmm jëmm ji ci nekk ab cër nga ca jëmm ja cër bu ci tawat rek mboolem yaram bi dal di sibru dal di feebar jullit ñi ñu ngi deme ni ki tabax mool bu ci nekk benn jullit la ni mool yi jàppante ba formé tabax ba mu dëgër noonu la jullit ñi war a mel mu ni képp koo xam ne aar nga jullit ci tiis yomal xiyaamee suñu borom dana la booleeg malaayika muy dox sa digg ak safaraw jaanama waaye képp koo xam ne takkal nga jullit lu ñaaw loo xam ne yaa ngi ci jublu rek yàq ko bu keroogee daañu la tëyee ci kaw jégganub jaanama ci kaw siraat ban loolee nga waxoon ci moom ak la nga jot woon ci moom lépp seey ba sot ci sa xol ñu soog lay bàyyi adduna bi nag bi ma ne ñaari yoon a ci soqee wii jëm fee wii jëm fee mu di ñaari kuréel ñoo xam ne du ñu dañ mukk di bëre kenn ku ci nekk yaa ngay dimbali la nga la nga jëm la nga xam ne mooy sa wàll la nga xam ne ca la yàlla xiir la nga xam ne moo xew ca dëkk ba nga jëm moo tax sallallahu alayhi wa sallam ne la tazalu taifatun min ummati qaimatan bi amrillahi la yadurruhum man xazalahum aw xaalafahum xata yaatiya amrullahi maanaam ashratu saati kon lu adduna yàqu-yàqu am na kuréel boo xam ne ak lu mu metti metti ak lu mu tiis tiis du ñu dem mukk mukk mukk di taxaw ci mbirum yàlla rek lu ñu néew néew kàttan ña nga cay def lu ñu mën du ñu jublu feneen mukk lu yàgg yàgg yàgg yàlla nag li mu bëgg mooy ku ko jox boppam ku ko jox sa bopp dana la fay fay goo xam ne bu keroogee da nga rus ndax bind la moom la ba noppi sañ laa dugal fu ko neex may la sa bopp ba nga xam ne boo yëkkatee sa bopp jox ko daf la ca amee lu njëkk ci baaxam la moo tax mu ne inna allaha tara min al muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al jannata yàlla bind na jënd na ci jullit ñi ci way gëm ñi seen bakkan ak alal lu mu leen ko jaayee ajjana moo tax jëmm ci nga xam ne dem na ba see boo jàngul sax waaye dem na ba jox boppam yàlla moo xam ci ñaari loxoy ab sëriñ la bu matut sëriñ wala anam bu mu joxe boppam boroomam wacc àdduna wacc lépp ngir jënde ko yàlla moom la ñuy wax faqir dañu ne nag nihayatul faqihi bidayatul faqiri faqih bi maanaam borom xam-xam bi fa mu dem ba yem ba tàmbalee ndax borom xam-xam bi mu tàmbalee di ba àgg ci xam dem ba xam ne àdduna bi day gent te loo fi am da ko fi bàyyi te boo fi jógee kat noo fi gën a bari lee noo fi gën a bànneexoo la génneen wa gën a naqaree doomu aadama ci lal ba muy deewee lu mu fàttaliku ci li mu moomoon ci àdduna wala fu mu mas a jaar rek dana ko jàppe ne gaaf la dana ko seexlu dana ko ragal dana ko tiit ki nga xam ne dem na ba xam loolu seet boppam nag xam ne amul genn kattan gu mu mën a musale boppam ci loolu mu ne ne seeti ku ko tane mooy faqir kooku moo tàmbalee fa nga xam ne fa la borom xam-xam ba yam faqir kese ba ndax li am solo ci nit lu dara lu dul xol bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am na ci jëm wenn suux woo xam ne bu yéwénee lépp yéwén waaye bu yàqu lépp yàqu loolu tax Luqmaan doon jaamu nit ku ñuul ba ko sangam ba reyloo gàtt ba tane ko indil ma cër bi ci gën dafa indi xol ba ba mu ko delloo yónniwaat ne ko indil ma cër ba ca yéesit xol ba la indeeti kon xol nu mu gën a raxasoo xol ndab la lu ñuy taatan tabek suñu borom gi tabaraka wa taala mel ne wàmme wuy dotti ku raxas sa ndab ba mu set nga taatan ko yaay am ndox ka ko deful mu am ndox ki jiitu nag ci lu baax raw na la dañu ne imaamu ahmad dafa solo ne sayidna abdurahman ibn awf ak sayidna xaalid ibn walid dañu doon wàqante sayidna xaalid ibn walid ne sayidna abdurahman yéen day bis yi ngeen ni jiitee ci lislaam tax nañ fab seen bopp teg ci sunu kaw nii yoon nu gën ba wax joojee dee dee ba àgg ci na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mel ne ku tàngat bàyyi leen sama saaba yi bàyyi leen sama saaba yi giñ ci ka amee sama bakkan ci loxoom ne kenn ku defoon ci yoonu la ci wurus lu toll ne daju wala lu toll ne daj yi montagne yi doo jot mukk mukk jëfi kenn ci ñoom sala waaye sallallahu alayhi wa sallam dafa mas am benn bis mu ni leen muy wax saaba yi di leen laaj neen leen waaw ana jan aji gëm moo leen gën a yéem ñu ne ko xanaa malaaka yi mu ne ah malaaka yi ñi nga fa suñu borom ci leer lañ leen bind xamuñu lu dul suñu borom nu ñu mën nañu mën a def ba bañ a gëm ñu ne ko xanaa yonente yi mu ne yonente yi wax yi day jóge ca yàlla di ñëw ci ñoom ñooñu mënuñoo bañ a gëm ñan ñu ñëw ko boo xanaa nun saaba yi mu ne leen yéen it na ngeen di bañ a gëmee maa ngi nekk fi yéen waaye ñi nga xam ne ñoo gën a yéemu ci way gëm ñi mooy ñi nga xam ne dañuy ñëwi ëllëg duñu ma gis duñu ma dégg dul fekk ay téere yi ñu rek ñu gëm la ca nekk ñooñu ñooy kéemtaan yi mooy waay xol boobu nit ci war ci dimbali ko tur yàlla ndax tur yàlla nee ñu moo mën seytaane waaye tur yàlla day bëreeg seytaane te luy bëreeg seytaane war naa bari ndax seytaane du yokkat mukk te yàlla kattanal na ko suñu borom may na ko mu mën a mu daw waayu deret ci biir doomu aadama fab ab joxam xam lump xolu doomu aadama di dugal ci bakkan ay jax-jax dugal ci bakkanam ay bànneex yu ba di ko tayyelloo di ko digum ñàkk di ko tiitu jëmee ci yoonu yàlla tur yàlla dong moo mën a dàq seytaane mooy tax mu tiit ak fàttaliku dee fàttaliku bàmmeel fàttaliku yàggaay yomal xiyaam ala bi zikrillahi tatma innul qulubu tudd yàlla dong bu bari mooy tax xol taxaw ci siraatul mustaqim yem ca sëriñ bi nee na laa ilaha illa allah bokk na ci meññetam suñu borom wërsëgale la tawxid ga nga xam ne moom la aarifoona yi am xam ngeen aarifoona billahi ñu am tawxid lañu kon li koy may nit mat na saxoo nee na allahu akbar ju bari màggal yàlla lay meññal ci xol alhamdulilah itam boo ko dee sikkar suñu borom dana la may nga sant ko taxaw taxawaayu cant ba jox ko xaqam te dana la jox kattanug yaakaar la hawla wala quwwata illa billahi daf lay tax nga wakilu ci yàlla joyal ko sa mbir loolu lépp lu ci nekk lu màgg a màgg la ci def hasbunallahu wa ni'mal wakilu dafay tax nga doyloo yàlla wékku ci moom wóolu ko jàppandu ci moom salaatu ala nabi day tax nga sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cofeel gu tar topp yoonam topp sunna astaghfirullah al azim day tax nga sax ci ragal yàlla tey wattoon teeg charte tuub yépp matal ko moo tax ñu ne ilzam baaban wahidan tuftax laka al abwaabu da ngay saxoo benn bunt rek ba mu ubbi ko yàlla ubbi la bunt yi ci des yépp dañ tubaa wax na ci masaalikul jinaan wa yaa axi al ghibata wa riyamaa al ujbi wal xasadi wal kibri daa wa adama rahmati lil insani wa hubbi rifatin ala al aqrani fa kullu man jamaaha aw ihtawa wahidatan minha fa xaasirun tawa li annaha tujibu radd al amali illa allazi amiloo fal taxtari nee na yow sama mbokk na nga wattandiku jëw na nga wattandiku njistal na nga wattandiku naw sa jëf te nga bàyyi kañaan ak rëy na nga bàyyi ñàkk yërmande ci mbindeef doomu aadama te nga wattandiku sopp yëkkati ko ci say nawle féete leen kaw nee na jikko yu bon yi képp koo xam ne dajale nga ko wala nga am ci benn rek da nga perte ëllëg ñu wax ci minhajul abidina ne juróom-ñaari asamaan yépp asamaan su ci ne suñu borom def na ci malaayika yoo xam ne dañuy fuuyee jëfi jaam ñi nit dana julli julli boo xam ne malaayika yi ci suuf yépp daañu ko sant matal na borom matal na rukoo yi ak sujjóot yi ak taxawaay yi ak ponk yépp te bi mu koy def teewlu na xolam ci yàlla bu demee ba ci asamaan su njëkk sa ñooña malaayika yi ca nekk jëw dong la ñuy seet ñu gisee ne boroom jëf ji rafet na waaye borom jëwkat la lamiñam wa dafa takk ripp ak jëw day xasaw ca jëf ja dañ koy taxañ sànni ko ci bët asamaan sa ca topp malaayika yi ca nekk ngistal dong la ñuy seet ci jëf sa ca topp ku naw sa bopp rek sa ca topp añaan ba mu jeex mu ne cosaanal wax ji addis la woon boo xam ne sallallahu alayhi wa sallam dafa waroon togg ku ñu wax Muaaz ibnu Jabal bi ñuy dem ba mu yàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teen xool dal di tudd suñu borom dal di ne Muaz maa bëgg dénk dénk boo xam ne boo ko wattoo dana la jëriñ waaye boo ko sànkee kat dagg nga saw lay sa digganteeg sa borom dal di nettali xisa bi ba mu àggee rek Seydina Muaz mënatu ko muñ dal di yëkkat jooy moo tax mu ni wax wa xadisun jaa an xayri rasul min ajlihi baka Muaz ibnu Jabal mabda'uha anna rasula salla musalliman alayhi rabbun jalla rakiba yman murdifan Muaz mu jeex mu borom azza wa jalla sant doomu aadama farata yonent bi sallallahu alayhi wasallam mottalee jëf yi sunna nu war ak sunna ci naafila ngir suñu jëf mat sëkk waaye suñu borom nee na doomu aadama mënumaa jegeñ jegeñ loo lu ma gënal def li ma ko sant waaye doomu aadama du dañ gannaaw mu defee li ma ko sant di dolliku jëf yoo xam ne moo koy coobarewul boppam muy jëf yu rafet ba ma sopp ko waxtu ma ko soppee dama koy def sama xarit bu ma ko defee sama xarit dama nekk bëtam ya muy xoolee di loxoom ya muy jàppee di tànkam ya muy doxee di làmmiñam ba muy waxe bu ma ñaanee ma may ko bu ma santee ma defal ko loolu lépp dal tëmbeelu ci biir lu ñuy wax ihsaan al ihsaan mooy rafetal jëf mooy yuqu jaamu yàlla yuqu jaamu yàlla boobu la ñu tuddee tasawuf tasawuf réew mi umpale woon nañ ko ci bu dul woon si Ahmadou Bamba daanaka duñu xam lu mu doon tax ñu ne yoon la woon moo xam ne dafa raafoon dafa ràppoon ba ñu umpale ko nit ñi dañ koo gàddaayoon ba kenn waxtaaneetu ko mu dikk sekkarti ko ba mu set raxas ko ba mu set mu teg ko ci dëneer ba ñëpp jànloog moom mu leeral yoon wa ca jëm fii la muy nit koo xam ne daj na ci adduna ngir topp boroomam loo xam ne mburu ma daju ko ca taal ba moo tax ñu ne ko wa sabru ko faaqa sabra naasi xatta samawta bihi ila alal maqaami sëg muñ ëpp na muñu doomu aadama ba nga yëkkati ko ànd ak muñ googu ba dem ci maqaama mu gën a kawe muy ko xamee ci tukki bi mu tukki woon ak gannaaw ba mu dellu see muñ nga mu amee woon it ba mu tukkeegul suñu borom dañul di fab tiis yu jëmoon ci mboolem jàmm ñi teg ko moom dong ngir nit ñi am jàmm mu am kattanu mën koo muñ ngir sopp boroomam mu di ay tawat di ay balaa di ay feebar di ay naqar mu di ko istidaadam dafa mat ba mu daataan def li ñuy wax alfarq daañu ci dikk mu di nit ko bi xam nee ne yàlla daf koo bind ngir mbir mu màgg magga màgg mu daal dégg woote bi te xamul li koy woo fu mu féete moo tax mu daan waaxu waaxu mu daan waaxu rek ci àll bi bu demee ba mu yàgg mu ne tarfet jooy jublu feneen nee na booba li koy woo xamul fu mu féete waaye mi ngi koy woo rek muy dégg baat bi te ko yéene wuy ji muy def mu am ci métit lu toll ne Socrates dee mel ne ku ñuy wàcc ci ruwaam léeg-léeg mu mel ne asamaan si dafa daanu ci kaw suuf mu nekk ci diggante bi waaye mu doon nit koo xam ne li ñu wax kaamil daf ko doonoon alkaamil dañ ne man laa yutfiu nuuru maarifatihi noora warihi alkaamil alkaamilul muhammadi mooy ki nga xam ne wilaayam mat na wilaaya bu matee ni ma waxoon ne ci saahir noonu la jullit ñi mel ci ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax mel ne jënn jëmm ku ci nekk di cër cër bu ci metti yaram yépp feebar wilaaya ci boppam noonu la mel te wilaaya noonu la doona ci nubuwa di ab bànqaas ci nubuwa nga xam ne borom wilaaya bu mat ci ba mat ba mat ba àgg ci mel ne ndox mu sotti ko ci géej gi géej gi mooy lan mooy nubuwa mooy secret suñu borom bi nga xam ne dara génn ko loolu moo tax mu mën ne jaamu naa suñu borom tabaraka wa taala ñetti junni at te tënuñu aadama ndax jàng ngeen ne leeru Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ko suñu borom bindee ci juróom-ñaari géej la ko tëmbal géej gu ci nekk nekk na fa di sabbal su borom ci xeetu sabba woo xam ne moo ko njëkk sabbal te moo koy mujj sabba lu tolloog xuquban mooy ay junniy junniy at te boobu yëpp suñu borom xoolaate ko mu fekk rooxi anbiyaa yi ak awliyaa yi maanaam siddiqoona yi ak aqtaab yi génn ci loolu moo tax ñu attanoon yan bi nga xam ne suñu borom daf leen ko daan teg muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi mu tawatee ba tawat ji metti ba àgg ci dayof metti ba mënatu la dox dégg na nodd gi muy woote bi yàlla amatul jàmm amatul sago yëgatul métit yëgatul dara waaye fekk kàttan gam jeex na mu ne bëret mënu la jóg mu sukkandiku ñu roof ko alin ak sodd roof ko muy dox tànk yi rëdd suuf si di diri ko teewul mu dem sa jàkka ji julli ko noonu sëñ Tuuba radiallahu taala anhu tawat na tawat joj daanaka dem na ba mënatu la yëngal benn cër ngir tiis mu ko suñu borom teg waaye bu déggee nodd dootu am jàmm day def bër bër bër bër def ñett ñett ñett ñett ñett ñett ba mujj ne dañ koy nëbb nodd gi ngir bañ mu dégg ko ndax coono bi muy toggoo rek yonent bi sallallahu alayhi nee na waxtu wax suñu borom tabaraka wa taala nee na waxtu woo xamee ne ab jaam temp na jëm ci man ma waaxu jëm ci moom bu waaxoo jëm ci moom ma cal jëm ci moom kon gaañoo ñu nga xam ne ba kenn jógul la ñu jógoon jëm ci seen borom ñoo làq yiw àdduna ak yiwu àlaxira gaañoo ñi nga xam ne ñoo nit ñi juddoo istixdaat judduwaale defar gu yàlla defar ba mu mat ñu jaar ca yoon wa nga xam ne ñeent lañu danañ dem ba ñu yëgati ci àdduna dara lu dul suñu ku ñu wax rabi ibnu xaysam romb na tëgg bu fay ak weñam ba mu xonq weñ gi fàttali ko safara mu dal di xëm sedd guy ñu yanoo ko fa ndax rek keneen ku demee ne moom sooy na ab sooy ba mu xonq curr ci safara xelam dem ci boroom borom tabaraka wa taala dem ci màggam gi ak sañ-sañam gi ak kàttanam gi mu dal di dugal loxoom ca taal ba téye lañ ga ba mu sedd ku ñu wax du noonu masri nga xam ne wàllu kaamil bu doy ke man la woon dafa xamoon Cheikh Abu Yazid Bustami Cheikh Abu Yazid Bustami moom la Ahmadou Bamba radiyallahu anhu di wax ci yaa rabbana ilayka ashku xaali ba mu ko yónnee ndaw la dafa bëggoon ma xam maqaamam Cheikh Abu Yazid Bustami ndaw la mu yónni ba mu demee fekk mu to daf ko laaj ne ko man de Abu Yazid Bustami laa bëggoon a gis Abu Yazid Bustami ci boppam ne ko ana kuy Abu Yazid Bustami man maa ko bëgg a gis booba tey maa ngi a xam ku Abu Yazid Bustami man xamu fu Abu Yazid Bustami féete mooy kan ndaw la dal ne ak ah, ci dof la dal di dikk bi mu dikkee wax ko Zunnun al-Misri ne ko man day ka ma gis dof li ko li mu wax mu dal di xam ne dafa toll ci maqaamam xayba maqaamam xayba moomu daan ko waxtaane insha allah maqaamam xayba moomu moom la aarifoone yi di toll bala ñu buñ ci jógee dikk ci shahada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 labal ko ba damay jéggalu sama borom loolee di muur xolam du dara yéen waa Sénégal ak li ko wër ma ne la jeex na waaw waaw alxaybu tv la meilleure seen youtube du Sénégal ubbi na ay bànqaasam jëmale ko ci askanub Sénégal waaw da am sa évétement muy événement bu mu wanti doon waaw da nga am li nga xamante ni moom mooy jàng wala nga am gudd bi yenent bi wala tàkkusaanu bi yenant bi lépp loo soxla ci événement dañ la koy filmel ba nga kontaan monté la ko monté bu rafet waaw alxaybu tv nag ñu ngi fii diwaanu Sénégal da ngeen bëgg seen événement ñu koy couvrir mu gën a rafet mu gën a yànj muy baax lool wol alxaybu TV ci numéro bi ma lay waaj jox di 77 963 31 95 77 963 31 95 95 alxaybu TV la meilleure chaîne YouTube du Sénégal.